wax nga dëgg de.
xam naa li ma wax maa ko wax waaye ñëpp seetlu na ko jotaay bi jar na sant yàlla de si do xaj maa di toog Serigne Babacar sës ci Cheikh Hadj Abdou Aziz sës ci ku dem aljanna fekkoo fa lu mel nii booy ko génn
waaw.
maam alxaaji Saïd Nourou Taal mag mu ma doy nett li na ma bi dafa wax ne man Saïd Nourou bu ñu ma indilee aljanna ma gedd aljanna tànn sama yaay waaye bu ñu indi aljanna indi sama yaay ma gedd aljanna gedd sama yaay ndeem indi nañu ma sëñ bi xaaj Malick kon li muy jëkk a sant yàlla mooy ba munu nattu wul ci nuy am njort lu ñaaw ci nitu yàlla yàlla bul ko ci am yëguloo ni jort lu ñaaw ci nitu yàlla ku mu dal natt bi gën a rëy daal na xaw na butéel bu ñu dëpp war ko ba mu mokk sotti ko ci soow suukar jox la ko ni la caat yi la ku ko naan booy ko noyyi bu baax dootoo noyyi lu baax ñaaw njort ci nit yàlla noonu la mel dégg leen li ma wax xottu butéel bu ñu dëpp ba mokk lay ko sotti ko ci soow suukër ko jox la ni la caat gi la ku ko naan ba yëpp ni moom nga naan boo amee soxla ci noyyi booy ba ne say bakkan faas dootul noyyi lu yàgg si dil xaj Malik Maodo nee na am nañu nekk ëllëg ca safara yàlla yebal malaayika yi ngir leen seen njort lu ñaaw la ngeen doon njort ci yonent ya ak ci nitu yàlla ya moo leen bàyyi ci biir safara maa ngi départ may leen ma rek tuuti ñaar fukki minutes rek lay doon àddina ki ci gën a sonn mooy kii ñaaw njort ci ku dootul wàññi wax ci Cheikh Ahmed Tidiane wax ne qadamaaya haataan ala raqabati kulli waliyillahi taala min ladun aadama ila nafx fi suur si la xaaj maa ngi daf ko jël def ci ñeenti téere ba mu tëgg ci baxar waafi kulli wali keer la daf cee tëgg benn bayt ni kamaadatu munkiri yi ala sdiyaati wala zaala almaratibu fi lilaadi nee na ki yàlla nattu muy bañ Cheikh Ahmed Tidiane wala muy bañ ku muy jaboote nee ko yow Seydi Hadji Malick nee na sa res neew wi na nga bare jeqali ko yow nga dem alaxira ndax ki nga bañ di cheikh minute bu ne muy yéeg di ay martaba naaw ak ñi ko gëm ci xadratu ilaahiya si da xaaji Malik moo ko bind taw xam lu fanaan am kon maa ngi nuyu jullit fi teew di leen ziyaara di leen ndokkeel gàmmu gi mën nañoo ñaan te mboolaan fu mu jaar loosam ndam bu fa gëleem toll la war a def ndànk déggu leen li ma wax de mbonaat ak ni mu gàtt fu mu jaar loosam ni jëriñ dam gëleem ak ni loosam gudde bu tolloo fa mbonaat toll woon loos wa damm na dox lànk ci da Xaji Malik du cuune amul kuy cuune cuune du ko gëm cuune du ko yaakaar waaye bokk ci moom tawfiq la noonu bëgg jullit yëpp ngir yàlla noonu sopp mbindeef yàlla yëpp ngir jëm yàlla mi leen bind waaye séddu nanu gëmm nanu surtout nag nu dajeeg li nu gën a tas nanu sunu yaakaar ci képp koo xam ne kii yaakaaru loo Seydil Xaaji Maalik wala nga jox ko xaram ku yaakaaru Seydil Xaaji Maalik joxoo ko xorma tas nañu sunu yaakaar ci yow yaakaaru lu la yaakaaru lu la nga yaakaar yàlla rek la ñu yaakaar Seydi Xaaji Maalik rek la ñu yaakaar rasulullahi la ñuy topp moom la ñuy roy foofu laay yem ci nuyoo bi maa ngi door ci gàmm bi ci mbindum góor gu mat ga ci yàlla góor gu jub ga ci kaw sharia góor gu jub ga ci xaqiqa góor ga naan gu ci tariqa ba góor gu sell ga góor gu muñ ga góor gu baax ga góor ga Seydi Xaaji Mansour doon joxaj naan naxliilu jismi tawilul baay muctadilun wa jahwarun sawtuhu fi tuuli udnaahu góor gu néew ga nelaw ngir ragal yàlla ak jaamu yàlla qalilu nawmin وأكل قل منه شراب الماء والجسم للطاعة عادة góor gi nga xam ni bés ba taawam gane àddina di maam faat si ci la mujj a lekk yàpp ngir bañ bañ bakkan bu beew di Seydi El Hadj Malick maa ngi ziar mbooloo bi Seydi El Hadj Mansour Mbaye yàlla sa fan gudd li xol yépp doon xasan yàlla révélé na la ko wokk nga ko li xol yépp doon xasan yàlla révélé na la ko wokk nga ko yëgulu ni kii toog rek lañu am sëriñ Babacar Si Mansour billahi wallahi tallahi ñi toog yow rek lañu am bu la neexee am sëñ ab bu la neexee am Serigne Cheikh Tidiane Sy bu la neexee am Serigne Maodo bu la neexee am xalifa bi Seydi Mouhamadul Mansour waaye nit ñi yow la ñu am xam nga lu tax nit ñi moom la ñu am nit ñi dëgg la ñu bëgg wér la ñu bëgg sonn nañu ci nax yi ñu leen di nax sonn nañu ci masante bi te yaa jël dëgg instauré ko ci nopp nit ñi guddi instauré ko ci nopp nit ñi bëccëg yàlla yàlla yokk sa ndam te billaahi lii may wax bu ma ci jiitalee sama bakkan yàlla bu ma yegg Dakar yàlla rek a tax ma wax sëñ Abdou wax nga wax bu rëy li mu ni nit ku ko xeebal bësam xeebal ko soxlaam xeebal ko sëriñam yaa ko tooñ ñemewuma yokk sa wax waaye yokk ci xeebal ko góomam waaye ñaari junni nag moom baax na ci kuy wax am na yàlla mos a caay ci ne yow rek la nu am yaay suñu cër waaye li nu la yéene yéenewul la ko yow kenn jàmm ku ko ñaanal kenn bu ca jotee moom kenn dootul am jàmm ko sa kër ndey ak sa kër baay ak ñi leen sopp ñëpp nekk ci musiba fooy amee jàmm yal na nga am jàmm yaa jullit yëpp yal na nga am jàmm yaa kilifa diine yëpp yal na fi yàlla dolli jàmm ndar dëkk ku barkeel ndar dëkk ku leer la ndar dëkk ku sutura la maa ngi ci joxe preuve ci ñaari bind dugg ci mimi bi preuve bi jëkk bi ki ko wax bala maa tudd turam damay tefesu melokaanam góor gi sol ko ne kaara bu ñuul kukk la moom rek lay sol di waxtu ba set wecc na jëmm ja sete xol baa ko gën a set fees dell ak ragal yàlla fees dell ak mbootu tariqa jub xoj tafu ñàcc ca baayam sa suur rek ak rakam ja góor ga ca kaala ga Cheikh Sidi Hadji Mouhamadul Mansour kii may wax Serigne Babacar Sy la tudd góor googu dafa wax rëy ci ndar wane ni ci la dëkk wane ni ndar di waxe wane ni ndar di jëfe ñu seetlu ko lépp di civilisation ak ngor ak jub daf ni ndar wa xaytuma laqaytu minhum waaxida yaqulu ne ebe yakunu shahida ebe lada wadaihim maarufu noonu wa way way baynahu maaruf il faut il faut muallifun bila ajal sihi lada taxqiqi qawlin wa amal wa daka dahbun musbitun maa baska wa sabata alxadis nafsu eska kooku wax loolu ci la preuve ko beneen preuve bi góor ga ca bay jaxaw ca maxane mu xonq di médité ci boroomam ba li ëpp ci photoom day ngal ko baaraam ca taar ba ca sell ga ca simplicité ba ca woyof ga jeex tàkk ci yàlla jeex tàkk ci bëgg lu baax gis ba ne gànn te woyof ba ne toy nëbb ba ne mes waaye feeñ ba ne fànn jóge fi barki démb te dumlu dinu gis biiram bi Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz da baax lay wax Ahmed Barout nee na moo ko màggale wax ci ñaari junne Barout baradallahu amrakum Cheikh Hadj Abdoul Aziz da baax dafa wax ne dafa wax ci rasulullahi waxin woo xam ni ak wax joo xam ne nitu yàlla yëpp wax nañ ci rasulullahi waaye bosam bi feeñ na fànn ci biir wax yi ni jant bi fési ci biir bi téew yi bu bindal ñu téere bii tudde ko xilaasu zahab fi sirati xayril arab ne lépp looy wut a xam ci rasulullah ni bëñ yi bare noonu la mën a naat dëxëñal naa la ko ci téere d'accord may sama tuuti rek benn béykat rek mu yegg si dafa wax ne lépp luy wut a xam ci si lu jour bul sonn yëral sama téere dëxëñ na ci leeri yàlla ak xeeti xam-xam yoo xam ni ku ko jàng ku ne romb ku ko jàng ma jël ci benn bayit gëstu ci lu yàgg xalaat ci jàng ci mu ne nag ñun jullit ñi ki ñuy roy lépp mbaax la waaye mbaaxam gi ñu war a gën a seet loolu mooy nooy gi mu nooyoon ñépp moom rasulullah ma jublu ci lan niru gu niru wala niru bu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz niru rasulullah nuuru na ko lool
yóbbu loolu koo man du ma ko mënatoo nekk kilifa koo man ba pare du ma ko dootu kilifa dëgg la waay kilifa day baax dëgg la
koo tànn te doo ko dimbali lépp koo gis loo ciy laajte yaa ko wàcc boo ko doon dimbali di ko gis koo xam si kër te di ko nett bu bokkatul ci sa jotaay yaa ko génne waaye koo jéggal baal ko dimbali ko suturaal ko mu ñeme la loolu la si nga xayma ne tey jii yaa jabootam
mi leen ki ma laaj ne nan lay def ba nekk ku baax xanaa mu tee bépp mbir moo xam ni day yaybal laabal xolam bëgg ñépp lillahi muhtasiban di jox ku it ku ko dog fu mu toll tey ko dëgal yaatal dënam te di muñ fu mu toll tey dana tooñ ku tooñ mu baal ko li wajhillahi tey yewenal tey it mu roy melo xayri xalqi شافعنا صبرا وصفحا وعفوا نيم واخلى ملل شعجب عيسى مارنين صوني ملي فورب العرش يادك باح بلتاي بليوكي يوم يوم واجد دق دمل kooku mën naa dox nekkuma ko sax sëñ bi war a dem rek a waaye billaay bëgguma laa dox nekkuma ko sax waaye jéggal ma rek ma daal li ci def yónni yàlla Muhammad ku wax ni bëgg nga ko te doo ko roy ci baaleem doo ko roy ci jéggaleem doo ko roy ci suturaal gi muy suturaal bi déet bi wax nga bëgg nga waaye wéragul ci jëf te Seydi Xaaji Maalik ku doy waar xoolal nit ñi lim ci wax ci njool màkka waaye guddi bu mujj bi seetlu mi ngi wax ni rasulullah mësul dëkkmal mbooloo yegg si fekk ñu toog lu dul ca gannaaw mbooloo ma lay toog
ni ko safiyatul yow bu ni loolu buñ ko mokkaloon dootul am daje bu dee suñu mokkaloon ku yegg si ci mbooloo sa fati wax yàlla waaw kay ok soxna nañ sa biir bi yegg si maa ngi ñaan ñu téye sarax yi day jaxas sama xel maa ngi ñaan ñu téye wala boog ñu di ko jox jaaw góor mu di ko jaarale ci suuf ba boo ko gis ak sama bët lu ma doon waxati ok Seydina Muhammad sida xaaj Mali dafa wax ci simplicité ak ci sunnaam ni xaysun daa majlisun kaana juloosu da soo ko jëndee ni gaaw a dugg da nga naan kaana nekkoon al juloosu lahu jataay yonti yàlla Muhammad xaysun daa majlisun fas fa mbooloo ma yem bu yegsee fa mbooloo ma yem rek mu toog ci seen gannaaw xeetu parfum ngay bàyyi ko ci yaram wa daal di ñu saraax ca bakkani mbooloo ma leer nga gànd leen ñu geesu yëg ni sang ba ñëw na ñu jóg wër ko mu nekk ci dëgg xam nga loolu buñ ko mokkaloon dootuñu am daje bu déporté waaye bàyyi jim bàyyi xel boroomam tax lam yëg li sànn bi xëy ni du toog mukk ci tudd yàlla waaye lam yaqum du jóg mu jub di dem di xëy ni dëgg buy toog tudd yàlla buy dem tudd yàlla bu toogee di wax yàlla bu dëjee ci lalam di wax yàlla bu toojee di xalaat yàlla buy joxe loxo di joxe loxo ngir yàlla buy akolaat di akolaat ngir yàlla buy baale di baale ngir yàlla lu muy def yàlla ak loolu la Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz yoroon ba ñëpp ubbi seen xol yi mu ne ŋàpp ñu dugal ko ci biir tëj ni ràpp mënatul génn ci ñoom ci kum koroye rasulullah yi Cheikh Al Hadj Mari wa alyanu naas yi moo gën a nooy ci nit ñi moom njël makka qaalu wax nañ ñoom saxaaba ya la gën a wér ci njël makka saxaaba yaa ko jàngale moo tax xaalu ci ci saxa bi daf ni ay xawlu saxaaba ji mooy waxu saxaaba yi saxaaba yi ne lam yakun mësul nekk moom yonent bi xaala kawnihi daa makkin waaw li ci gëm wala yow dafa nafa warfaa bi waawin wansibanna bil alif wajru bi yaain ma min al asna asli jaa abuka wa axuka wa xamuka wa fooka wa zoomaali raaytu abaaka wa axaaka wa xamaaka wa faaka wa zaa kon xaala kawni zaa maki lam yakun wax naa rafaa bi wax na sa bi jamaa jar bi marartu bi abika wa axika wa xamika wa fiika wa bii maali wa fawq kulli bii ilmin alimun ca nasaba inna abaha wa aba abaha qad balaga fi lmajdi gaayataha dégg nga de lam yakun masul nekk moom rasulullahi va maddin mbir muy boroomu tàllal min alxadami ci dëggu tànkam bay na saxaaba ci su nekkee ci diggante saaba yi buñ ko wëree luñ ko wër wër ak luñ ko fonk fonk day bank tànkam yi mu ne rab ngir ragal yàlla ak respecté mbooloo ma loolu laa bëggoon wax ci kanam sëriñ bi sëriñ bi kon ñaanal bi buñ ma ci digalee dara ma teg ci leen bu fi yemee ñu yem bu ñu kiyee ma kiyaat bu ñu kiyee ma kiyaat ba woo
Thank you.